ko nangu xam nga lu tax. opposition radicale alors. du ma ko nangu. parce que li li ak li ñu war a liggéey li yàqu bari na bari goo xam ni jubbanti ko ci attaque lu topp. Hmm. ce serait très suicidaire d'autant que man j'ai des chances intactes pour euh, remplacer Macky Sall en deux mille vingt quatre parce que jàpp naa ne moom bokkul. Hmm. mille vingt quatre du ci bokk. waxoon naa ko fi ci benn waxtaan euh, nit ñi yor seeni làmmiñ di di di wax xam nga réew mi yàlla na ma yàlla baal dafa bëri ay waxkat euh, tey nangu nañu euh, Macron waxtaan ak l'opposition française mm. sur des questions extrêmement importantes yoo mm. xam ne war nañu ko évacuer mm. nangu nañu les républicains et les démocrates gisante euh, aux États-Unis waxtaan sur des questions de l'heure mm-hmm. mais Sénégal boo ko defee ñu ne toog nga Sénégal boo ko defee ñu ne wuy collabo nga mm-hmm. alors c'est dommage fan yële ci ginnaaw man dama wax wax ñu leer <laughs> dama ne bi ñuy wax problématique de l'emploi des jeunes ma leen man Bougane Gueye xalaat bi ma yor mu néew mu bari président Macky Sall bu ma laajee suma xalaat ci problématique de l'emploi des jeunes ma jox ko suma xalaat ça veut pas dire damay liggéey ak moom mais danaa ko jox man li ma xalaat parce que li ma jàpp nag Pape Abdoulaye Der mhm. mooy képp ko am xalaat mhm. lu war a régler le chômage endémique des jeunes sénégalais nga ne da ngay xaar ba deux mille vingt quatre bu ñu la falee nga koy doog a dugal ci réew mi mm-hmm. je dis yow bugguloo Sénégal mm-hmm. sa bopp moom moo la intéressé mm-hmm. parce que y a des chômeurs y a des chômeurs ou des sans emploi qui ont cinquante ans yor seen jabar yor seen njaboot kooku mënul toog di xaar ba deux mille vingt quatre kooku dafa soxla solution bu ne këtti ni jonn